Amérique tàccu leen samb bu baax a baax a baax a baax a baax ay na yegg xale baa ngoog xale xale bi yëngal jamono te xew te xew a xew <laughs> ay mën nga indaale sa micro ah mën nga indaale micro bi comme ça ñu mën a waxtaan ay décembre gis nga woy bi mu njëkk a def euh, tey ci Pello defe naa la woy la woo woy la woo xamante ni euh, xale yi dañu ko def im na ndaw day soog a door jàpp caa la war Euh, nga wax ci itam leneen loo xamante ni euh, ku ko dégg da nga ciy bàyyi xel yaa ngi naan àdduna ak yaatuwaayam buur yàlla ak yërmandeem bu ko xol yi yaatoo woon kon mu neex ba jaaxal gaañ yi nuyoo ak Sénégal Aïda waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñu fi teew tey ci mhm. émission bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di la nuyu yow Pape Cheikh Diallo di kontaan ci invitation bi parce que première émission bu ngay def nga xalaat ma. mais xalaat bi nga ma ci xalaat daf ma neex trop. yéen a ma saf. li tax. man yéen yéen a saf ah man yéen a ma intéressé. parce que li tax. waaw mu neex ma. danga ma boole koo xamante ni dafay sama mag. di sama xarit. mu bëgg ma. Mhm. ba ma xam ne man. Pape Diouf daf ma bëgg. li koy firndeel mooy. dañ fi jógee dem moo Mauritanie c'est juste benn anecdote. waaw ah. ku la defal lu baax. ma doon xaar ba tey ñu jàkkaarloo pour ma mën ko ko wax. kon wax ko devant devant tous les yeux. Sénégal a ngi lay déglu. waxal sa lu baax. dañu ànd no ak shot. Ah. man sama contrat. playback la woon. Ah moom mu war a jouer live. ñu dem ba foofu par hasard ñu toog nii di añ. ne ma ay yaa ngi waajal. ma ne ko waa mais man li may jouer garaawul playback rek laay def. <laughs> <laughs> yomb na. waaw uh-huh. mu ne ma playback mu ne ko ah playback rek laay def moom mooy sama contrat. Mm-hmm. mu na ma no Aïda doo ñëw ba fii Mauritanie sa premier jour ma lay bàyyi ngay def playback. ndeysaan mu yëkkati téléphone am mu yëkkati téléphone moom woo Ibrahima Ndour sunu manager ñëpp ne ko allo Ibou lu tax Aïda di ñëw ba fii di def playback mu ne ko ah Ibou ne ko play ko contrat playback la mu ne ko déedéet. ndeysaan. mu raccroché téléphone bi jël téléphone am woo Laye Diouf manager génération consciente mhm. ni ko laaj mu ne ma la defal tuuru musicien yi nga wax leen ne leen Aïda du jouer playback live lay def ndeysaan ma bëgg ñu tàccul ma ko bu baax parce que loolu ku amul xol ku amul xol boo xamante ne xolu partage nga am doo ko nangu ku amul xol boo xamante ne li nga yéene sa bopp loolu nga yéene keneen du ko nangu kon ma bëgg ñu tàccul ma papa yow yow sàmb kenn gënu la li ñuy faral di wax naan wax sa mbaaxu waaye du ci sa mbaax dara ah voilà li nga wax ci Pape Diouf wàññiwul ci sa mbaax dara nga nekk xale def premier album boobu ba tey muy cartonné ñu gis ni yamuloo rek ci def ay playback yamuloo ci génne album def promotion rajo wala télé waaye foo tëgg mu fees yaa ngi tourné bopp ba tey li ma laaj Pape laa lay laaj luy sa secret ci xale macha allah ci xale premier album macha allah bopp ba tey muy cartonné teg ci itam ngay def sey tournée yu bëri Sénégal Mauritanie Côte d'Ivoire France Italie fépp foo dem sénégalais yi kontaan luy sa secret yow it. waaw amul secret. Euh, waa jërëjëf nga baal ma damay bëgg loolu damay bëgg xalam ngiy dem ci suuf. liggéey jali ah ok. man bi may génne sama album. may bëgg loolu. ñépp xam nañ ne Samba jabare mooy sama maam. te ku xam Samba Diabaré xam ne àddunaam yëpp mooy yaru. jom fulla ak ngor. ndeysaan ma judd ci loolu. yaru ci loolu màgg ci loolu. yàlla boole maag ak ay nit yoo xamante nag à bas âge. à l'âge de 9 la ñu commencé jàpp ci samay loxo di ma wan yoon di ma wax jaaral fi ngay jaar alors loolu ma am ko donc plus la pour man plus le fait que ma commencé am ku may ku may teete loolu plus la. Mhm. alors may remercier ñëpp alors pour man daal affaire bi yomb na yombul mais nag mhm. suñ borom moom mooy xool lu ko neex ci jaamam mu teg ko ko. ba pare moo lay boole ak ay doomu aadama ñoom tamit ñu teel a jàppale ak seen fukki loxo. xam nga ndeysaan euh, li ma préparé woon pour wax ko yëpp dafa ma réer ndax dama kontaan barki Serigne Bamba. tàccu leen ko waay. dama dama kontaan euh, duma ci sori duma yaatal dara xalam gii di dem nga jàkkaarloog Pape xam naa ni sax. yàgg nga dégg xalam ndax sa maam Samba Jabare àddunaa ko mereel jéeg yu baax yooyu yàgg nga ko dégg kompelloo la ñu wax nga toog jàkkaarloog paap xalam gi biir ci suuf boo ko doon bàkk nga song ko mu song la nu muy deme waaw bëgg a wax ah, su woyee ba daaneel Pape tontu ko mbaax doon noon te la Pape mbaax googu yàlla jox la muy mbaax man xam naa guy gu daat gaa ngi toog ndeysaan ndeysaan di la jàngal waaye yaa jàngal sag maas ci sa paap ci sa ci sag mbaax paap ci sa su gi digee mbiram digi samba la turam musaale su ko paate la ñuy woowee sama maam yaay caala la ñuy woo sa yaay tey la la yóbbi jéeg su doom yi màggee at leen sa yaay la yow géej gi ba yey na leen Pape fayul bàyyi ko mu fayu jamba jàmbaar saa yoo xam ne mettee fitu yaay ja dootul toogee ma woy la ma ne lu baax bu doon doy doy bu yàgg waay ewa eh sama rakk ji sama rakk ji lay wayantoo xale nga waaye am nga jom mi gaynde day ñeme jam jam alaaji samba jabar lañu woowe sama ju duguri néeg baay waaye fayda borom a ko moom ayda ayda ayda ayda ko seqal xam na sa ngor yaa yéwén doole. Oh. eh waay Samba. waaw oh. njëkk jëmba Diouf. Sadama ca yeede. Masamba sama maam. Cheikh Dioufay sama baay. Meduna yi sama baay. moo di Isa baay. sëriñ daaru mooy sama baay ay da sama rakk ji jërëjëf ko ni ko yàlla def mu noppalee su ngeen ko deful ni ko yàlla def mu ànd ni ko yàlla mel ba jaaxal leen ay da sàmb neexu leenam waaw wallaay ni ngeen xale bi safu leena waaw wala si kenn bañu ko ay papa Cheikho ah, kenn bañu ma papa Cheikh wóor na ma ni kenn bañu ma dañuy bengoo kese leen ma waajur ak ñaanu baay ndeysaan barke baay baay ree tuddul baay ree baay ree la tudd te ku baay ree nga am baay pap sa baay moo ree jërëjëf Malick mi ngi nan dellu saara ba allah yee amaa ndeysaan maami la mi ndaw lay woy koo koy bagal mu def sara koñ ne na nu ma nga daanu saaña mbaar bakal bi nga baasi ndaw a nga dee ndeysaan Ibrahima ndaw nga daan dimanche bi muy julli Kaani ndaw nga daan dimanche bi muy julli sambalo bi jaati ndaw nga daan dimanche bi muy julli amma kentu la yendoo du jiin ba loxo neen mali menge njaay nan dellu saaraba ma ne ngeen tàcculoon bi sama yaram tàngee léegi ci ñoom ñaar li ñuy pelloo dama ne lu baax bu doon doy doy bu yàgg kon bu fi yamoon sax neex bii xeetu jàkkaarloo gëj na ci télé kon bu fi yamoon neex te pare guñu ay daa ngi toog paa ba ngi toog paap léegi wax nañu ko fu mu bokk waaye moom itam Aida Sénégal yëpp xam nañ ni gawlo la Sénégal yëpp xam nañu ne ndaanaan la comme dañoo wootee pello damay woo sa mbokk ndax nit mbokkam dama woolu koo xam ni xam na yaay kan te defe naa ni bu la bàkkee ba benn benn la di nga gën a bàyyi xel ci ki nga doon ma bëgg ngeen tàcc ko ajaratu Kairé ajaratu Kairé Mbaye nit mbokkam waaw waaw merci Louis Senghor danga may fàttali sama yaay ajaa Banne Diallo yaay yaay Sophie nga may fàttali sa taxawaay maire bëri feeling ah <laughs> Aïda Samb laa bëggoon ci gàttal rek nga wax ma mooy kan kii faj si Samb moo ko jur ak ku ñuy wax Ousmane sàmb ca Mbakke muy directeur école bu liggéey ba retraité ca Mbakke sans défaut gis nga kii bu wayul dina jaaxal doomu aadama yi dina jaaxal sax picc yi naaw bien vrai que nag Samba Jabare mooy maamam mm-hmm. moo jur yaayam mm-hmm. waaye kii maam ju mu am ndaanaan la ci ndey ci baay déggoo wax bi de lu juddoo ci tàgg bu naawul war a jaaxali mbokkam Samba Jabare mooy maamam waaye maam di mu am moom dam day waykat la ci diggante ndey ak baay waaye da koo nàmp nag meen te meen dafa foor waaw meen foor eh le saint le le le saint le saint. oui. ko jur ñu dégg ko nag ajaratu Ayda Mbuub miñ ko tontoo. kon maamam lañu ko fayee. kii maam lañu ko fayee moo tax mu am jom. <laughs> Fassé yaayam Ayda ko jur. ku jur Ayda. ku jur Ayda Fassé. Ayda Mbuub moo ko jur mooy Awa Samba Jabare Samb ma nga Jolof. waaye nag ku ma yibi maamam ndaanaan la lu tax Ibra Fatim maamam daaj mu doon ma laaj fu mu doon demoon na ah. waaw Ibra Fatim maamam dañoo ñëwoon di wut ay guitariste fii Sénégal tubaab yu jóge France Ibra Fatim maamam ki jur ki jur yaayi Fatsi mi ko jur hmm. ñuy woo ko ne ko Ibra Fatim Amadou Ndee la dafa am tubaab yu jóge France di wut ku leen xalamal nga xam ne lii ci ñun doola ñu jël ñëpp dëkk àddina monde entier jël yóbbu leen France ci dëkk bu ñuy wax Berlin. ah ca France. ca France ñu dem xale ah. <laughs> ba ñu demee pays bu nekk ñu woo xalam pays bu nekk rek ku fa nekk woon nañ la nga xalam dëkk bu nekk rek woo nañ diw Pape Cheikh Diallo diw kii diw ñëwal xalam bi ñu Ibra Fatim maamam mi jur Ayda mi ñu dafa fodat xalam ga comme les daal di xalam foddat tubaab ya jóg tàccu ñu def ko meilleur guitariste du monde kii dégg naa doon naa naan ak xalamam ak <laughs> ca dëkk ba ñuy wax Berlin ca France eh waaye nag moom bi mu màggee yàqul liggéeyu ndeyam de déedéet xam nga xale tubarfakal la macha allah man ngaa jóg tàccu yi bari nga fàtte sa yaay fàtte sa papa fa mu nekk waaye moom li mu njëkk am da cee njëkk a teral ndeyam teral ci baayam te gis nga kii baayam barke Seydina Mouhamed laa Pape Cheikh kii boo xamoon baayam ni mu mel ci doom kii baayam dafa sonn ci njabootam yaayam dafa sonn ci njabootam bi mu màggee nag dàqul liggéeyu ndeyam waaw ma bëgg nag nga bàkk ko léegi borom maam yu rafet yi borom maamu ajaratu yi ajaratu ay da boobu la ñuy wooye sa maam mi ñu la tontoo moom la ñu suulaale barki démb moo njaay ak taar ba waaye ndey jabaay la sa maam tudd madame juge de paix mbokku ndeyum jëyi ak fa bal la sama yaay ak faati mi ñu wufal bàyyi ñi si barki démb yow daan yow ndaanaan nga war a doon waaye nag ñooñu daamay seen càmmiñ mi ngi fii ci Touba ñu ngi fal Serigne Touba Ibra Fatim Amadou Ndeela mi ngi jëm sambe gën jëm ko sambe te ko sel nga indi bi bàyyi ma waay <laughs> tamit nag affaire bi dafay metti xam nga lu tax lu tax waa Mbàkke nga ne toog ñoom ajaratu nen ne Njaay ña nga nee toog ak caama sàmb sama taw bu ñàkkul jom waaw waa Gàmbi ñëw nañu ñoom Fana Cissé ñoom Seynabou Cissé ñoom Mame Dieye Cissé tubaar fakal la macha ak ñoom Marianne Fall ñëpp nga ne toog. jërëjëf. yow nag son noon laa yërëm. ajaratu Kayra Mbaye. borom sabar yi nag waroon ngeen maa fàttatoo tuuti xam nga ndox du bàyyi yoonam. waaw. <laughs> ñu àggali Cheikh yàlla laalaake. xam nga ki nga laal. ci sa loxo du métti ku ci sar xool ne doo dee maa yaa laal laalaake e maa laal laalaake xam nga ki woo kan la doomi ndaanaan dëgg la xam nga ki woo mooy kan sëtub ndaanaan ah eh yaa laal laalaake e maa laal laalaake eh maa laal laalaake maa laal <laughs> laalaake Aïda gis nga gis nga ni nga juddoo sànq ne naa la bëgg naa laa wax ci gàttal rek ni nga juddoo defe naa lii mu la wax jom rek nga war a am woy boo ko defee danga koo war a def ndax ndono la ci yow waaw xam nga li naan dono moo foor mhm. li ma wax sobuma maam ma li ma dal ku mu dal noo def nga woy maam mhm. sàmba deret moo ma ñuluk <laughs> deret la tooy deret parce que man am deret moom a sonal ba pare mu nekk passion ci man ndeysaan parce que sama papa mosul bëgg ma man ma nekk waykat ndeysaan parce que comme moom intellectuel la sama yaay aussi intellectuel la. Mhm. alors moom rêve am yëpp moo nekkoon ma jàng man tamit ba nekk. intellectuel nekk leneen lu dul nekk lu dul waykat mais ko loolu alors bi ma demee ba dem terminal. ma def bac benn yoon ça marché alors j'ai continuer di def musique. ngeen tàccu Aïda Samb bu baax kon bu woyee war a way su wayul dafa war a ñu ngi gërëm ñëpp nag ah, ba léegi rek guddi gi euh, jeexagul de dañu koy doog a door sànq nee naa leen bu fi yemoon neex léegi nag dañuy def benn détour bu ndaw daal di génn Dakar. génn Thiès euh, génn ci yenn gox yeeg gox goxaan yi daal jubal nag dëkk bu ñu naan Saalum ku ne Saalum sa xel dem ci ndaanaan yu mag yi waaye nag ku ne Saalum sa xel war a dem ci ngoyaan ma bëgg ngeen tàccu bu baax ajaratu Xadi Mbuub mu ñëw ngoyaanal ñu tey ci Pello. sëñ Fall ak sëñ Babacar seen loxo ca kaw. waaw waaw. ay na ba ne waaw.